heures ñu sermonné leen bàyyi leen y a beaucoup d'élèves dans cette situation là. mais bu ñuy wax je m'associe à cet appel. oui mais il faut vous noter noter un enseignant cette vidéo a fait le tour du monde. c'est condamnable un enseignant des élèves jël leen lii ngeen taal et loolu ñu leen ko loolu euh, politique de tout bord war na ko condamner mais xam nga tamit euh, yéen boo leen di promouvoir état de droit dañuy xaar tamit mu am équité euh, devant la justice. Euh, par exemple qu'est-ce qui peut justifier euh, police barricader la permanence du PRP qu'est-ce qui peut justifier euh, que Dame bokk ci opposition bi déclaré ne il a subi une agression on a tiré sept balles pourquoi tijjiwuñu enquête pour xam ndax li mu wax dëgg la wala du dëgg on se contente juste de dire que ce n'est pas vrai qu'est-ce qui peut expliquer que certains citoyens tout à l'heure gis naa un un un rappeur Euh, dof ndey euh, mu def vidéo di saaga ndey di yor machette di wax euh, mun nañu jàpp ne dara du ko ci fekk. Mm-hmm. qu'est-ce qui peut expliquer que certains qui vous sont favorables bu ñu nekkee dans l'espace publique di def yenn affaires yi di tenir yenn propos yi kenn du leen jàpp et que de l'autre côté duñ leen may dara. citoyens yi xanaa tolloo ñu ci kanamu loi. man je condamne toute forme de violence toute forme même de de comportement bu nga xam ni. qu'il n'est pas respectueux d'où qu'il vienne d'où qu'il vienne et pour moi képp ku ko def yoon def la war a teg loxo pour moi c'est ça moi je ne suis pas dans les trucs là dans le sentimentalisme man dama gëm ni nga nekk pouvoir opposition boo jàddee yoon dañ la war a teg yoon parce que loolu bu ko deful ce sera la porte ouverte à tout. à mais mais mais mais beneen jox exemple yoo par exemple bu force de défense et de sécurité yi dem ne dem ci siège barricade ou bien mais xam nga. dama ne la il y une notion essentielle boo xam ne dañ koy jàngale mooy l'ordre public trouble à l'ordre publique le seul responsable bu amee c'est l'autorité administrative l'autorité administrative dafay jël ay mesures préventives munoo wax ni damay marcher par force ñu bàyyi la ngay réunion foofu pour déparer marche loolu il faut quand même qu'on se bu ñu la teree dara da nga koy boo ko deful yoon dafa am ay puissance loolu la ñuy wax les prérogatives de puissance publique pour que ñu mën a tere loolu dans tous les pays du monde ça se passe comme ça et je crois pas que ça soit un vrai problème